Cheikh Ahmadou euh, comme ni ma ko waxee président village des migrants yemul rek ci sénégalais yi waaye les africains yi nga xam ñoom ñooy tukki di jóge seen réew di dem bitim réew muy réew réewu nasaraan yi moo la ñor nga leen taxaw ci ay euh, mbir yu bëri waaye fi mu nekk nii coow li bëri na dañu seetlu fan yi paase rek gaal yi amoon na tuuti apaisement tàmbali na waat ñiy waxati yoonu Maroc bi. gaa yaa ngay bëttaat di tëb ay barrière pour dugub biir Espagne ba am ay moor dafa mel ni kii amoon na euh, apaisement touti mais affaire bi yéegaan na lu sabab lu ni mel balaa ñuy ñëw ci condition yooyu. waaw euh, d'abord damay présenter village du migrant nekk une euh, structure sociale bu basée au Sénégal en Afrique de l'Ouest mais on intervient dans beaucoup de pays en Afrique et à l'étranger. Euh, suñu mission benn mooy sensibiliser sur les dangers liés à la migration irrégulière accompagner les jeunes à la réintégration, ce sont les migrants de retour, mais aussi faire la documentation et la recherche des migrants disparus. Pratiquement en Afrique de l'Ouest, Euh, lu ci ëpp luy documentation migrant bu réer daanaka ñun ñoo koy wër moo xam bu dee koor et cetera fexe ba ba ba liggéey ci de telle sorte que identifier ko ak ay mbokkam. mais loolu boole ngeen si émigré yi nga xamante dañuy am ay tolof tolof bitim réew ñu jàpp leen tëj leen kaso wala ñu am ay tolof ñuy wéradee ak yooyu noonu. effectivement récemment même am nañ ci ay cas yoo xam ni indi na leen fii Sénégal te actuellement ñu ngi def suivi bi. parce que am nañu ay collaboration ak institut yoo xam ne ñoom ñuy def euh, ce qu'on appelle euh, les suivis psychothérapeutes jëm leen a jàppale donc euh, ñun moom lépp luy immigré rek luy migrant africains Euh, daanaka moom mooy sunu sunu domaine d' intervention. ñi bëgg a ñibbisi tamit ñi bëgg a ñibbisee ak lépp ku ñu signalé. Mhm. des fois si on part euh, ci mission à l' étranger juste dans le but d' identifier les migrants. Mhm. africains subsahariens en situation de détresse mhm. di leen signalé au niveau des ambassades ak ambassades yi. Euh, ñuy xool naka la ñuy lijjantee ba aussi ñoom ñu dellu fi nga xam ne moom mooy seen réew. Euh, concernant la question effectivement il y a de recrudescence du phénomène migratoire. Euh, xëy na ñaari sax activité je peux dire pas activité waaye am na ñaari xew-xew yoo xam ne jot naa am euh, benn bi mooy bi nga xam ne moom mooy xew-xew bi am euh, au niveau de Kafountine te mu nekkoon benn gaal boo xam ne daanaka ñi ci nekkoon bëri na ci ay doomu Sénégal ay doomi Gambien. boo xam ne dafa doon dem fi nga xam ne moom mooy bitim réew euh, nekk fi nga xam ne mooy en Espagne mais malheureusement euh, fourneau bi nekkoon ci biir euh, fourneau bi actuellement maam finalement dafa mujjee tàkk ba bu causé ci quinze morts hmm. au moment où nous parlons dem maa ngi déglu sax procureur bi bu bu Ziguinchor mu naan am na ñoo xam ne jot nañ leen cee teg loxo ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo tëggoon gaal gi waaw donc euh, loolu di benn événement euh, beneen bi mooy événement bi nga xam moo xew fee ci Melilla mhm. te muy euh, événement bu bu bu bu désastreux bu catastrophique boo xam ne mhm. ñun maanaam liggéey nañ ci liggéey yu am solo parce que ñun en réalité suñu liggéey mhm. daanaka fii Sénégal jàpp ne les informations migratoires bu ndee cent quatre-vingts ñun ñoo koy génne parce que nous sommes sur le terrain on travaille avec beaucoup d'entités on travaille aussi avec les jeunes. Mm. Euh, finalement même jeunes yi bu ñu embarqué ba dugg ci géej gi sax dañuy woo nañu mm. embarqué nañu. Ah ñun oui ñun nous on contacte ñi nga xam ne ñooy les navires espagnols de sauvetage pour ñu ñëw intervenir ba laa ji yi di am parce que bu leen sensibiliser. ñu rëccunu ci géej gi. Mm. ba dugg ci géej gi du leen bàyyi. dañ leen topp pour bu dérive amee. ñu mën a xam fan lañ toll. fan la fan la fan la chavirement bi am. ñaata personne lañ. comme saa ñu mën a intervenir ak li nga xam ne mooy les navires espagnols. Ah, ngir mën def li nga xam ne moom mooy moom moom mooy sauvetage yi. Hmm, hmm. fexe leen aussi ba xool naka lañ leen di defee ba ba dellu soit seen réew. waaye ñun cautionné wuñu benn yoon. Hmm. la migration irrégulière mooy jël ay gaal waaye nag doone ko sensibiliser naa ko cautionné ma ko dem na jëye am na rek nga bàyyi ko. doo ah. ñun ay sénégalais lañ ay africains lañ. Uh-huh. te bakkan doomu aadama en fait moom moom moom la ñuy sàmm te moom la ñuy fonk surtout rawatina bu migrants yi mais bi nga xam ne moom moo xew euh, récemment mairie la mm. depuis le 24 juin 2022 euh, bii ñu génn. attaque bi mi ngi amee vers euh, sept heures trente à sept heures quarante cinq je fais un peu de cartographie. waaw concernant li nga xam ne mooy le foyer migratoire au Maroc. Mm. Maroc dafa une partie stratégique ci li nga xam ne mooy euh, foyer migratoire entre l'Europe et l'Afrique. Mm. parce que mm. moom mooy buntu bi nga xam ne. moom mooy moom mooy buntu. gën a jege bi gën a jege fi nga xam ne. moom mooy Europe. donc finalement. Euh, dafa am ñaari partie daa am partie du nord ak partie du sud. partie du nord mooy fi forêt yi nekk les forêts de Tanger. Hmm. forêt de Nador forêt de Tétouan. àll bi quoi waaye mooy àll bi nga xam ne dafa jàkkaarloog Melilla. je rappelle que Melilla ak Ceuta ce sont deux enclaves espagnoles qui se trouvent dans le territoire marocain. mi ngi mel ni ni Gambie bi nekkee biir. Sénégal ñoom noonu la ñu nekkee biir Maroc. donc foofu la barrière yi nekk barrière yi nag c'est trois pans. Mm-hmm. yoo xam dañ ko teg de douze mètres voire huit huit à douze mètres de de de hauteur. ak de mm-hmm. de de beaucoup de kilomètres de de mm-hmm. de longueur de telle sorte que jeunes yi bañ koo mën a deuxième cartographie bi mooy cartographie bi nekk le sud du Maroc. foofu mooy c'est vers vers vers Dakhla vers Layoune Tarfaya Birgendouze et cetera. foofu gaal yi nga xam ne ñooy génnee Sénégal yëpp. gaal yooyu foofu la ñuy jaar pour dem direct vers les îles Canaries. maanaam ku génne Saint-Louis. da ngay jël cap bi dem fi nga xam ne. moom mooy mooy Mauritanie yi dem Dakhla. tu mm. fais direct cap vers les vers les kii mais attaque bi fi mu amee mooy la nord. Mm. attaque bi nag dafa am lu koy indi. Mm. ñun euh, dem nañ demati nañ ci fore yi ànd ak jeunes yi. Hmm. xam nga fekkee attaques yi xam ñoom naka la ñuy def xam seen psychologie. dëkk hmm. ak ñoom ndax kat nit booy liggéey ak ñoom. Hmm. dangay xam effectivement lan mooy parce que nous sommes plus terrain que bureau. que bureau nous ne sommes pas trop costume cravate. donner des chiffres nous sommes nous sommes terrain. loolu moo tax attaque bi ni muy amee mooy ñoom dañuy daje. te bu ñu dajee dañuy nekk un nombre bu conséquent boo xam ne dañuy dem ngir bëtt barrières yi. mën a jéggi dugg fi nga xam ne moom mooy partie espagnole bi. Hmm. su ko defee quoi euh, euh, Croix-Rouge bi fa nekk jéem ne yóbbu dans les camps de tention ñoom ñu dal fa. mais ci biir fore bi dafa am nu mu bindoo. dafa hmm. bindoo li nga xam ne. moom mooy ay termes yoo xam ne dañ fa am lu ci mel ni ay termes buum laa lu ci mel ne ay termes boza lu ci mel ne ay termes attaque ay tapé salaam loolu ñun ñoo ko xam. loolu autorité yi xamuñu ko termes yi ñoom ñoo koy utiliser seen bopp ñoo koy utiliser seen biir. ñoom migrants yi même ñu ak ñoom yëpp ñoo koy utiliser. boza boo déggee boza mooy kenn koo xam ne jóge na fii dugg Europe. Boza fii c'est-à-dire Boza benn terme Cameroun boo xam ne saa saa saa suñu koy réussir ici. mooy dugg na mooy réussir na. li nga xam ne moom mooy action terme Bumla Bumla mooy chaque 4 heures du matin. Hmm. gendarme ak policier espagnol yi dañuy déplacé wu ñëw ci biir forêt bi. bu ñu hmm. ñëwee ci biir forêt bi. Hmm. ñoom dañuy def ce qu'on appelle benn genre genre ravage genre ramas boobu nag ñi ay bopp yu xar da ci am nit ñi dañuy daanu ci forêt ci roche yi ay ay décès yu bëri yoo xam ne ñun dañ dañ koy dañ koy dañ koy convoyé mais attaque bi euh, ci biir fore bi li tax nombre bi bari mooy dafa am ce qu'on appelle des plots plots yi ay numéro la am na plot 1 2 3 4 5 mais plot bu ci nekk dafa am ay nationalité yu fay nekk comme boo demee ci yenn forêt yi y a béninois mm. y a y a mais Afrique francophone en réalité moom moo fa ëpp y a des sénégalais man fekk naa ci forêt bi lu toll ci 700 sénégalais yoo xam ne tey ñu ngi fa ñi ngi fa ñu ngi ci biir forêt yi 700 sénégalais yoo xam ne ñun euh, bi ñuy ñibbisi dernièrement am na si ñoo xam ne on les a pour ñu ñëw seen dossier ñu ngi koy traité ak ñi xam ñooy les autorités. ñu mën a ñibbisi. 700 yooyu tamit ñenn lan a des béninois des camerounais des des des des des comment dirais des ivoiriens et cetera. Mm, mm, mm, léegi ñoom bu ñu dajee nag dañuy def attaque dañ koy togg ba mu ñor ñu soog a attaque barrière bi mais bu ñuy dem attaque dañ fay fekk ñi nga xam ne ñoom ñooy les policiers marocains. je rappelle ne. l'Union européenne a mis en place ce qu'on appelle le Frontex juste dans le faire l'externalisation des frontières. Mm. maanaam dafa teg Frontex ngir mu garder ko li nga xam mooy frontières yi waaye c'est en dehors de la Guardia civile espagnole. Mm. Frontex maanaam mooy mooy barrière yooyu ñu teg. waaw police naare koy garder. Europe moo leen ni armé moo leen mm. jox armement yi moo leen jox équipement yi. pour que jeunes yi bañ a jéggi. mais malheureusement bii passé nag jéggi bi. daa doon jéeg bu désastreuse boo xam ne je rappelle que c'est pas la première fois amoon na en 2014. amoon na mais taraxal la tuddoon. taraxal c'était le 6 février 2014. Hmm. ci territoire espagnol bi ci taraxal bi ci ci plage bi ci lañ rayé woon 14 subsahariens. Hmm. vous voyez. Hmm. boobu nag nëpp nëppal beek yëf yi ba finalement mujjul fenn.